mooy ne Souleymane Jules Diop bi xana du mom lañ fi waxal né mom mo fi génnoon mu yek fi Seigne Modou Kara li né kamé mais mais c'est ces gens-là c'est des charlatans c'est-à-dire sëñ Modou Kara daf ma mosoo woo quoi non il était très sérieux il a rassemblé tous ces bokk ak ces éléments là te fi mu ne man lañu dénk alwa bi tey moom la ñu gisaat bu dem Seneweb Souleymane Jules Diop bu dee moom moo nekkoon ci audio boobu muy tagg sëñ Modou Kara di wax naan sëñ Modou Kara daf ko may montre jamaa mu fam ñoo xam ni euh, dañu umpule sama diggante fa laa doon jëm sax ñu bëri danoo jàpp ne yéen ñaar dafa am ay diggante ñaga dañoo umpule sama diggante moom

man la Mister Shake depuis Brooklyn New York tey du yomb tey du yomb ndax ndax dama am lu wax cri de cœur dama am lu ma naqari Sénégal mooy naafeq bi am Sénégal damaa gis benn xale bu ndaw benn bébé dix mois mu daal di ñàkk bakkanam mu daal di dee ci benn crèche crèche boo xam ne foo xam ne dañ fay dénkaane say doom bëgg naa wax ci Souleymane Jules Diop diggante ak sëñ Modou Kara bëgg naa wax ci Kara sécurité ndax problème bi fi am ñu ne lu toll fukki xale fukki nit bokk ak juróom-ñaar 17 personnes dee nañu ci centre bi nga xam ne ay centre yi nga xam ne sëñ Modou Kara ndeysaan moom lañ ko dénk ay nitam toogal ko fa ba ñu jàpp ci ñeent fukk ak ñetti nit 43 personnes waaye doomu jaawo milliardaire dañ ko mettre sous contrôle judiciaire maanaam dañ ko bàyyi mu dem këram waaye bàyyeeguñ ko léegi li tax may wax Souleymane Jules Diop mooy dafa génn muy wax ay wax di wax si sëñ Modou Kara mënul def lu ñaaw xamul lu ñaaw genre wax yu mel noonu daal la doon wax dinaa leen tegal ngeen déggal seen bopp li mu doon wax waaye li mu wax li tax mu jaaxal ñu mooy ne Souleymane Jules Diop bi xanaa du moom lañ fi waxal ne moom moo fi génnoon mu yekk fi sëñ Modou Kara li ne xeme wax ne sëñ Modou Kara charlatan la gars yi xam nga la mooy charlatan mooy koo xam ne da ngay sëriñ sëriñ lu waaye mënuloo tous da nga fi nekk di lekk xaalisu nit en tout cas ay audio mi ngi fi. te fi mu ne bi dégg ni akasa <laughs> dara la gars <laughs> maanaam ay wax yu ñu teg nit moo ko war ndax tamit loolu bëgg naa ci wax da ngay nekk ak sa xarit ngeen di waxtaan nekkate li ngay waxtaan yëpp mu ngi lay enregistré mu ngi lay enregistré après daal di la weeje mun na am noonu la demee dama xamul lan mooy ndeyu sax ngay enregistré sa xarit loolu dafa war a jub ci réew mi waaye en tout cas bu fekkee ne kii ñu teg ñu ne Souleymane Jules Diop la bu dee moom la moom moo fi génn mu yekk sëñ Modou Kara li ne xeme wax ne sëñ Modou Kara charlatan la maanaam mënul dara sëñ Modou Kara daf ko benn bis wax ko ne alloué bi nga xam ne dañuy bind kan mooy nekk président alloué Mahfouz moom sëñ Modou karaa moo ko yor te Macky Sall bu bëggee nekk président il faut que mu ñëw seet si ko moom sëñ Modou Kara ba mu waxee loolu moo xaritam ñu nekk fa di wax Sénégal a neex tey moom la ñu gisaat mu dem Seneweb Souleymane Jules Diop bu dee moo nekkoon ci audio boobu muy tagg sëñ Modou Kara di wax naan sëñ Modou Kara daf ko may montre jamaa mu bañ xam nga di wax sëñ Modou Kara der bu muy jullee moom moo ko ko may ñu nekk loolu daf ñu jaaxal bu fekkee ne ñii ñooy jiitee Sénégal bu fekkee ne Macky Sall ñii la jël yóbbu leen ñu nekk ambassade UNESCO UNESCO nga xam ne moo yor affaire culture mën nañ ci boole sax affaire jàng xale gi lu lu mënti doon UNESCO nga jël koo xam ne tey bu ñëwee wax lii suba bu ñëwee wax lële li mu wax lan moo ci am ndax dafa sosal sëñ Modou Kara ndax bu fekkee ne yow da ngaa sosal sëñ Modou Kara ci ci audio yooyu balaa ngay dem ci balaa ngay demaat Sénégal di wax ne ku baax la Diallo li mu ko waroon laaj mooy. est-ce que audio yooyu yow la wala du yow lool la ko waroon laaj. te fii mu ne man lañu dénk alluwa bi man ko Mbacke déet waay xam naa xam naa bëgg dégg bi ak saa. Ah, dëgg la gars bu fekkee ne audio moom la lan moo taxoon xanaa dafa juumoon ba muy wax ne sëñ Modou Sara ak charlatan la du sëriñ mu ne ma te nag sa waa ji ñëwul fi mu ne ma ci bind turam de ne ko jox effacé te fii mu ne ku ma neex <laughs> dafa xam li mu xam léegi mi ngi boobu nekk loon ci nguur bi léegi mi ngi ci nguur bi soxla nañ sëñ Modou Kara soxla nañ ay taalibi sëñ Modou Kara ngir ñu wootal leen xëy na looloo tax nekk fi tey di wax li muy wax loolu nag bu fekkee ne dëgg la Souleymane Jules Diop loolu yëfu naafeq la gars yi fokk faut que ñuy waxante dëgg. ba jàpp nga ne il n'est pas méchant du nit ku bon du men na ñuy naan yëgu na ñuy naan yëgu ko man xam naa xam naa ko dañu xam nga au fait man j'ai un défaut du wax sama diggante ak nit du ma koy wax parce que amul intérêt damay yoot dem guddi ku ñu waxtaan waxat waxante lu nuy waxante bi nga xamee ne aussi diggante ma président war naa cee dox. ci am ci